ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàllal suñu loxo ci suñu doyet yi ak suñu matadi ñaan borom bi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy boromu man te mooy borom sañ-sañ Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba Serigne tubaa gën ko suñu borom gën koo dëgëral gën koo kàttanal gën koo may ak wér gën koo tal may ak tal ba lépp loo xam ne yéene na ko def ci lislaam ak ci jullit ñi ak doomu aadama yépp suñ borom jox ko kàttan gu mu ko defee te ñu ànd kook moom te daje ci ngërëmul suñ borom képp koo xam ne itam sa sa sa tool mooy lislaam yàlla na suñ borom gën a dëgëral yàlla na suñ borom gën a kàttanal ba lépp loo xam ne yéene nga koo defal lislaam yéene koo def ci jullit ñi suñ borom jox la kàttan ak man ak tal goo ko defee te nga ànd kook ña nga ko war a àndal te daje ci ngërëmul suñ borom ginnaaw loolu nag ba tey ñuy jàll si waat rek di waxtaan ci mbirum saxaaba yi ndax xam nañ ne waxtaane leen doon loo doon na loo xam ne rawatina jamono jii nga xam ne moom lañ toll ak yi nga xam ne moo fi nekk ci ay ndëgg sërëx ak yi nga xam ne moo fi nekk ci ay gàllankoor te ñoom ñooñee ba ñuy ta ba lislaam di taxaw daj nañ lu nekk ja jàmmarloo nañ ak lu ne te li leen may bañ mën a taxawal lañ bëgg a taxawal mën a ka am kàttan gun taxaw gun taxawee ba mën a wane liñ gëm man koo dund dara mayu leen ko woon lu du ngëm gu wér ak ak dogu ak jàpp lañ jàpp te xam ne lii mooy dëgg loolu nag mooy li nga xam ne moo moonu mën a dimbale ci jamono jii nga xam ne moom lañ toll ak lu mën a ñëw ak lu mën a doon nañ ca xool suñ pas-pas bu fekkee ne dëppoo na ak moom ñu ànd ca bu fekkee ne dëpp wut moom ñu nag ñu won ko ginnaaw ndax xam ne loolu doonul lu ñuy jëriñ ci àdduna doonul loo xam ne moom moo ñuy jëriñ ci àllaxira tey ki nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee mooy Utbatu bnu Xaswaan moom nekkoon na koo xam ne moo bokk na doonoon na juróom-ñaareelu jullit ci ñi nga xam ne ñoo doon ay jullit moo doon juróom-ñaareelu jullit ci ci ñi nga xam ne jiitu woon nañ joxe seenu ngëm ci lislaam doonoon na koo xam ne itam tàllaloon na loxoom teg ko ci loxoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg moom ngir lépp loo xam ne moom la ko digal mu def ko lu mu ko tere mu bàyyi ko comme ni nga xamee ne ni la suñ borom tàggee ña nga xam ne ñoo jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon ne wone ne ba ñuy jaayante jaayanteeg moom day bañ tegee seen loxo ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ xam ne yàlla teg na loxoom ci seen loxo ci seen kaw doon ki leen ñetteel ki nga xam ne moo leen di seere ci li ne moom lañ def ginnaaw kooku nag mu doonoon koo xam ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi tartar yi amee ci màkk ak métti yi yi nga xam ne moom la julli ñu njëkk ña doon jàkkaar lool te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ñu rawale seen diine bëgg ñu mucc mu digal leen ñu gàddaay dem Éthiopie bokkoon na ci ñi nga xam ne gàddaay yoon nañ dem Éthiopie waaye demee ba mu demee Éthiopie yàggu fa lan moo tax yàggu fa moo di moom dafa bëggoon yonent bi sopp ko lool ba tax na mënut a moom ba tax na dafa toog tuuti rek ci Éthiopie daal di dellusiwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bi nga xamee ne yonent bi digle na nag ne nañ gàddaayee Màkka jëm Madina moomuñ bokk ci ñi nga xam ne gàddaayee woon nañ ne Màkka jëm Madina ba mu demee itam mu doon koo xam ne jàmbaar la woon joo xam ne ju ñëpp ju ràññiku mus waaye nag jàmbaar googee ndefu ko woon ci kanam yonant bi kese waaye ginnaaw bi fi yonent bi jógee itam njàmbaar googee da ca wéy lañuy gën a woon ne nag wéyoon na ci ngan njàmbaar googee moo di bi nga xamee ne Seydina Omar ibn Xataab nekk nay nekk na xalifa moom da koo yebaloon moom Utbatu ibn Xaswaan moomu ne ko da dem ci dëkk boo xam ne ñu ngi koy tuddee Abula ci dëkk booba nag ci jamono yooyu ci waa per ci Perse la bokkoon bi nga xamee moo ne ko nag ne ko dama bëgg nga dem ubbi ko sa te jéem te suufam soosey nga xam ne ay ay xëram ak i ak lu lu nu wërta jaamu moom lañ fay def nga sellal ko ba lañ fa war a jaamu képp nekk fa bi nga xamee ne nag jógu jóg na moom moomu di dem ci li nga xam ne mooy li ko Seydina Omar yón yónni yoon Seydina Omar dafa leen a am loo xam ne daf leen koo déggoon dafa daf leen a waxoon ne na dem te te sukkandiku ci suñ borom képp bu ko defee nag bu leen jàpp ne da ngeen di dox as ndiir kese waaye lu ngeen man lépp rek def leen ko moo di ne jàpp leen ne da ngeen ubbi su maanaam réewi arab yëpp ba mu jeex ngeen dugg ci Perse moom it ubbi ko te loolee nag bu ngeen ko defee lu dut ci kaw sukkandiku ci ndimbalu suñ borom ak jàppaleeg suñ borom bu ko defee bu ngeen demee foofa nan ngeen di jàkk nan ngeen di jëflanteeg ña nga xam ne ñoo fa nekk mooy dangeen leen di woo ci yoonu yàlla bu fekkee ne wuyu nañ leen ngeen daal di xam ne ñoo seen mbokk lañ ñu ñooy seen mbokk lañu ak comme yéen bu leen leen tu na ngeen leen ñoŋalal seen i dor seen i deret na ngeen leen ñoralal seen ñeegal seen i seen i alal na ngeen leen ñoŋalal itam seenub der bu ko defee nag bu fekkee ne dañoo nanguwut nag da ngeen leen di wax ne ku nanguwut day am na impôt boo xam ne danañ ko teg ci yow ndax buñ fi nekkee ñun ñooy fas yéenee gàddu kaaraangay dëkk bépp kon nag ku fi nekk ku nekk am na impôt boo xam ne boo bokkut ci jullit ñi itam da ko joxe ndax mu jàkkaarloog kaaraange googee ñu lay defal bu fekkee ne nag wax ngeen ne ni joxe benn nag nangu na nangu ngeen woon ngeen leen ñu wuyu na ngeen leen bàyyi buñ nangoo joxe impôt itam na ngeen leen bàyyi bu fekkee ne ñaar yooyu yëpp dañ koo bañ bu boobaa nag nee na na ngeen génne seen jaas yi te bu leen ci am benn yërmande ci ñi nga ñooñee ña jàkkaarloo leen ak ñoom fu daal te nag li ngeen di def yépp itam nag bu leen ko def ci génn ndigalul seen borom bu leen ko def ci seen bakkanu bopp bu leen ko def ci seen bëgg-bëggu bopp bu leen ko defee ci seen kàttanu bopp waaye lu ngeen di def lu ne na ngeen ciy xool yàlla te di ko ca bàyyi xel bi nga xamee ne loolu nag yàlla ñoom moom ot bët moom jóge na fa ak ñiñ ko booleel ba mu demee doonul woon ka doon doonu woon amutu àndutoon moom moomee ak ay soldaar yu bari waaye yàlla defal na ko tawfeex ba ba nga xam ne loolee nga xam ne moo ko taxaw na jóg def na ko ci definu kawe njot waaye nag doonoon koo xam ne doon tada soññ waxtu wu nekk ñi nga xam ne ñoom na àndal di ne yàlla day dafa am lu mu digee mooy wa kaana haqqan alayna nasrul muminin yàlla digee na ne yépp jullit boo xam ne yaa ngi nekk ci li nga war a nekk taxawe ni nga war a taxawe bul ragal dara bul tiit dara ndax xam nga ne sa borom mi ngi sa mi ngi sa wet kon nag nañ xam ne ñun lii ñu tax a jóg te yàlla rek tax danañ ko am ci amin wu koy suñ jot mu mel ni nag ba mu koy wax dafa doonoon koo xam ne yàlla da ko mayoon bët yoo xam ne da ci doon gis la nga xam ne moo moo fàddu ci kanam nit ñi loole waaye lépp pas-pasam rek moo ko may loolu loolu nag tax na amuñ defuñ ay fan yi néew lañ def rek ñu daal di dëkk ba ñu daal di ñu daal di koy occupé jël ko bi nga xamee ne jël nañ ko itam moom dëkk boobee nga xam ne mooy abula ci jamono yooya te bokkoon ci Perse mooy badi mooy mooy mooy mooy basra tey ci jamono jii nga xam ne moom lañu nekk ba mu ko ba nga xamee ne nag jël na basra moomee jël na jël na abula moomee te daal di koy tudde basra daal di koy defar ba mu jag def fa jàkka ju mag a mag daal di bëgg nag ne kon li li ko taxoon a jóg day moom def na ko kon nag li ko dese mooy na delluwaat madina waaye ba bëggee ndax bëggut ak pal moom tax koo jóg li ko tax a jóg mooy yàlla rek ak liggéeyal suñu borom comme loolu comme yàlla ak liggéey suñu borom ko tax a jóg nag palto ko tax a goo jóg te lim doon jó li ko taxoon a jóg def na ko kon nañ daal di jógee ci dëkk bi waaye yoon mbaaye nag amarom no xattaab digal ko ne ko de da fay toog bi nga xamee ne digal na ko mu ne ko da nga fay toog mu daal di gis ne kon li ma war a def mooy comme li ma ta li ma taxoon a jóg mooy yàlla kon naa fas yéenee jeexal sama dund gi li ci des itam ci yàlla nan laa koy jeexale mooy naay jiite nit ñi ci jumaa ji di leen xamal li nga xam ne mooy seen diine di leen xamal itam ne adduna mii nga xam ne moom lañ moom lañ nekk ak lu mu mën a mel ak lu mu mën a wone du dara lu ñàkk solo la ba dang ba buñ ko bàyyi xel buñ bu mu rëy ci ñun bi mu defee loolu nag ñi nga xam ne nag xëy na àdduna yóbbu woon na leen loola xawoon naa tiis ci ñoom xawoon na leen a naqari ba tax ñu jëf ñu def ñuy taxaw waxtu wu nekk di jéem ngir mu doon koo xam dana bàyyi xel adduna si itam loola nag tax mu leen mu ne leen man de adduna du ma ko bàyyi xel ndax li tax du ma ko bàyyi xel man de dund naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nekkoon naa nekk naa di juróom-ñaareelu jullit kon te am na jamono yoo xam ne lekk day duñ ko def lu dul ne ay xobi garab képp la lekk kon nag yaakaar naa ne adduna moom munumaa yóbbu munumaa jëbale fenn itam ndax xam naa lañ mooy adduna ba loolu tax na man am na jamono joo xam ne am na benn mbalaan moo xam ne dama ko amoon bi ma ko amee dama ko xar ci digg ba am benn benn xaaj ba ma jox ko ku ñuy wax Saad ibn Malik bi ci des ma ma ma sol ko moom nekkoon na di koo xam ne àdduna sii da ko doon ragal lool ngir mu ma am benn jeexit ci diineem di ko ragal itam di ragalal jullit itam adduna di am denn benn jeexit ci seen ci seenu jullit mu doonoon ko xam ne itam fexe woon na ba lu nit ñëw ak noo mën a waxee ak noo mën a jëfee ci moom moom fi lim jàpp jàpp na ko te du ko fas ko bàyyi la tax bu doon ko wax nag la tax ne du ma li tax mu ne du ma bàyyi li nga xam ne moom laa jàpp te kenn mënuma ma ci génne moo di ne daf daf daa wax ne man de maa ngi muslu ci yàlla nekk koo xam ne damay rëy ci kanam nit ñi te bu ëllëgee ma nekk tuuti ci kanam suñu borom loolu bëgg loolu dama koy daw ba tax na lépp loo xam ne damay yóbbee ma kan ma nekk ku tuuti ci kanam suñu borom loolee dama koy daw dama koy moytu loola nag tax na bi nga xamee ne def na jëf jooju nga xam ne moom la jëf daa di am ba aj jot nag mu xam ne liñ ko yonant liñ ko doon def loo def na ko aj jot na mu bëgg a aji bi mu bëgg a aji nag mu jël kenn ci ay mbokkam ne ko man nga fee toog ba kër may ñëw waaye nag ba mu demee ma aji ba jeexal ajam dafa jëm jël si waatu basra waaye dafa dem madina te la tax la ko taxoon jóg jëm jëm madina mooy dafa dem ci dafa da doon dem ci Omar ngir wax ko ne ko daa bëgg mu génn mu mu mu mu folli ko ci place bi nga xam ne moom la nekk muy nekk nekk nóoru dëkk boobee la waaye Omar ne ko nag mënoo koo nekk ndax man itam bi nga xamee ne yàlla dogal na sama yéen ñëpp dangeen a dog dogu ci def ma nekk amiru muminin na ngeen xam ne du ngeen ma ko bàyyee nag képp ku ci man dara ku nekk danaa la ko téyeloo te damay te mënoo wax lu tax ma bàyyi la bàyyi loola la ma la téyeloo loola nag tax ba daal di xam ne moo lii nga xam ne moom la ko Omar wax fas yéene ci cee deltu ginnaaw mu daal di nekkoon naa fas naa daal di waraat sama gileem delluwaat ci dëkk boobee waaye ba muy dam daata nit war giléem ga dafa tàllal ay loxoom ci suñu boroom wax ko ne ko day daal di ñaan ne yow suñu borom bëggumaa delluwaat ci dëkk boobee muy basara bëggumaa delluwaat tam ci pal googee nga xam ne moom lañ ma paloon ya ba mu mel ni nag mu mel ni nag loolee ñaan googee suñu borom da ko ku daal ko daal di nangu ca saasa ba nga xamee ne mi mi ngi mi ngi mi ngi war giléemam gi jëm ci dëkk ba fala ko yàlla moomee mu daal di tàggoo ak ruwam guge gi nga xam ne moom la suñ borom def mu leer muy leer delluwaat ko ci suñ borom kon mu mel ni amul am na loo xam ne war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax loola mooy xam ne pas-pas bu dëgg bu wér képp mooy li nga xam ne moo mën a taxaw ci kanam àdduna waaye lu dul loolu amul leneen loo xam ne mën naa taxaw ci àdduna pas-pas bu dëggu ak fës yi ne am ful am ful am la ci li nga xam ne moom nga nekk loola mooy tax a bucc loolu yàlla na ko suñu borom defal moom mi nga xam ne moo na téye pas-pas yàlla nañu téyel suñuy pas-pas yàlla nañu koy gën a dëgëral ba xam fi ñuy teg suñu tànk te dara loo xam ne mooy li ñu war a mën a taxat war a mën a fabbi dara luñ ci war a mën a fabbi am loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla na ko defal yallaahu ya rahmaanu ya rahimu ya sa jalaali wal ikraam ya karimu inna nasaluka aljannata bila amalin amilnaahu wa nausu buka min annaari bila zambin taraknaahu wa nasaluka bi sitrika alladi la tusiluhu riyaa wala tuxluqu rima